بسم الله الرحمن الرحيم ci turu yàlla mi yërëm mboole mi jaamam di jagleel ñaka gëm yërmaande yowmal qiyaama alqaaria sa boroom yàlla mi ngi giñ ca lay fëgg xol ya yowmal qiyaama mal qaaria molu lay xamal lay fëgg xol ya yowmal qiyaama wa ma adraaka mal qaaria amoo yow lan moo lay xamal aji fëgg joojee yawma yakunu nnaasu kalfaraashi lmabsuut mooy bis boo xam ni nit ñi daan mel ne ay lëppaa lëpp yu ñu tasaare wa takunu ljibaalu kalihni lmanfuut la nga xamee ne mooy montagne yi mel ni benn leen bu ñu ëcc tasaare ci ngelaw li fa amma man thaqulat mawazinuhu bu keroogee day képp koo xam ne diis na sa balance jëf ju baax fa huwa fi 'ishatin radiyah ma ngay nekk ci dund gu gërëm muy aljanna wa amma man xaffat mawaazinu waaye képp koo xam ni dafa woyef la nga xam ni mooy balance jëfam yu baax ya fa ummuhu haawiya kooku day ndayam jami làqu ji ëllëg mooy safaras haawiya adraaka maa hiya moo lu lay xamal xur woowu mu nar a doon aji tabbi naarun xaamiya sawara la boo xam ne dafa doon lu tàng jër